salaamaaleykum mbokku internet 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su nekk di leen wax déwénati di leen baalu àq waaye tamit di leen baal àq ci weeru sel yu ñu génn di weeru koor di ñaan lépp loo xamante ni ñaan nañ ko ci suñu borom nangul ñu ko comme ni ñu koy defee nag saa su nekk émission bi nga xamante ni yéen ko tàmmul seen bopp mu di seen entretien tey nag ñu dalal koo xamante ni spécial kenn dootu ko présenté di ci mim réew mu di Mariama Ndiaye di madame Mbacké nekk directrice SEDAF bu Mbacké ñëpp xam ko bu baax a baax ci li nga xamante ni di social ak xeex jigéen ngir mu am place am ci réew mi duñu def lu dul bàyyi ko rek mu daal di ak mbokk internet di koy seetaan am Mariama nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay di leen nuyu di leen jaajëfal di leen ziar di leen balu àq di leen bal àq ci weer bu sell bi ñu génn di ñaan xéewal yokk di profito di ziar sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar. sëñ Abbas xalifa Daaru Muxti sëñ Moustapha sa xalifa sëñ aw Awa la di ziar tamit sama borom kër sëñ Abdou Samad ibnu sëñ aw Awa la di uh, nuyu internet yëpp yi nga xam ni xibaar 24 da leen a saf ñu koy suivre di leen ñaanal ay promotion jaajëf. allahumma amiin comme ni ma ko waxee sànq rek yow lañu ñu fas dalal tey suñu euh, seen entretien waaye du ñu dalal nit laaj te laajuñu ko moom mooy kan ak fan la jaar ñu bëggoon a xam euh, kan mooy Mariama. <laughs> laaj nit ci boppam de dina doy waar wante comme ni nga ko waxee man maa ngi tudd Mariama Ndiaye ñu dénk ma sëñ Abdou Samad sëñ Modou Awa Balla may doon jàngale jàngalekat laa euh, avant may jàngale nag. am naa études yu ma def comme ñu bari bi ma amee bac ba pare dem naa université def naa DEC comptabilité mais dafa mel ni sama destin ci enseignement la woon daa dugg ci enseignement sama première poste su Sarsara la Kébémer département Kébémer bi ma fu jógee def fa an ba léegi nag génn ma département de Mbacké bi ma enseigné pendant des années laa dem surveillance jaar Mbacke 3 jóge fa dem Mbacke 4 Mbacke nag si la jógee am détachement au niveau du ministère de la de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ñu denk ma kër gi ci euh, Mbacke ma représenté fii le ministre de la femme muy le centre départemental d'assistance et de formation pour la femme et la jeune fille ñu tuddee ko SEDAF soxna maam Diarra Bousso de Mbacke. comme ni ma ko waxee sànq macha allah am na solo ñu bëggoon xam lan mooy rôle lu SEDAF soo ko déggee mooy bërëb SEDAF administration la bokk bërëb boo xam ni centre la bu ñuy tàggatee jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi euh, bërëb la bu ñu leen di encadrer aussi du formation kese mais bu leen di bu leen di taxawoo ci wàll gu nekk nag sur le plan économique maanaam koom bi sur le plan social. Euh, Euh, sur le plan ak seen yaram santé tout ça lépp loo xam ne rek suñ ko defalee jigéen na fexe jigéen bi autonome maanaam mën a demal boppam ci loolu lañ nekk dinañ leen dinañ leen encadrer dinañ leen taxawu dinañ leen former dinañ leen joxe information am na tamit service accueil ci biir am na service accueil am na volet hébergement euh, loolu mooy mooy mooy mooy centre SEDAF. d'accord ñàkkul ne bi ngay ñëw am nga foo ko fekkoon mais tamit am nga foo ko jëlee ñu bëggoon a xam tamit madame Mbacké fan la ko jëmee moom SEDAF. xanaa rek fi ma ko jëmee mooy objectif SEDAF rek mooy fexe ba jigéen ñëpp autonome euh, man maay troisième coordinatrice bi yor am na ñaar ma fa jiitu euh, mais man maa ngi fa ñëw en 2016 mai 2016 laa fa nekk kon biento léegi ma am fa 4 ans. Euh, fa ma fay jëmee rek mooy objectif bi politique bi président de la république euh, teg ci jigéen ñi ministre de la femme di ko di ko xamul moo koy waxee encore euh, ñu dénk ko ministère de la femme mu dénkaat ko SEDAF yi muy li ma la wax rek muy fexe ba jigéen ak fu mu mënti nekk ci Sénégal mais plus précisément ci département Mbacké jigéen fu mu mënti nekk muy monde rural bi muy Touba muy Mbàkke ñu fexe ba ñu xam SEDAF ñu fexe ba bu ñu xamee SEDAF ñu teg leen ci yoon euh, ba ñu am ay formation ay defar leen formation fexe tamit ba bu fexe ba ñu defar leen ay financement waaw comme ça nag bu la formé jigéen wutal koy financement normalement war na mën a demal boppam. Euh, ci biir formation des fois du ngeen ci am ay difficultés yu ci am ci diggante transport beeg yu ni mel. non xam nga formation élèves yi dañuy def nii c'est pas tellement obligatoire au niveau de SEDAF mais da def ay groupement de femmes man maa ngi def form daan naa def sa formation ay élèves ay ay deux ans trois ans formation accélérée et cetera mais da ngay gis groupement de femmes euh, ñu ñëw déposer seen demande nga dem wuti ay formation parce que ñu amuñu budget bu leen defaree formation si loolu bi ma ñëwee SEDAF ci laa signé benn convention ak 3FPT euh, nga may ma ma sant le ministre actuel monsieur Dame Diop ministre de la de la formation professionnelle de l'artisanat mu jàppale ma lool lool bi mu nekkee 3FPT ba jigéen ñu bëri ñu defal leen formation di sant tamit 3 ONFP di remercier directeur ba fa nekkoon ak ki fi nekk actuellement muy docteur Soumaré ñoom tamit dañoo signé convention ak ñoom ñuy former jigéen ñi Covid bi moo tax mais déjà moom bi ñëwee rek formé nañu déjà 120 femmes donc quatre groupement de femmes euh, euh, amaat na yeneen formation yi war a am war nañ ko dérouler mais feebar bi moo tax Covid bi moo tax dérouler lañ ko ci partenariat la ñuy liggéey ci formation yi parce que tamit amuñu budget bu ñuy former jigéen ñi mais ministre de la femme tamit mu ngi jàppale tamit ci forme ci ci ci euh, financement waaw am na tamit ay matériels yu nekk au niveau de SEDAF SEDAF dafa am ay ateliers yu fa nekk am nañu ay machines à coudre am nañu ay congélateur am nañu ñaari mini boulangerie yu nekk au niveau du SEDAF euh, am nañu euh, euh, matériel pour restauration mais yooyu dafay nekk biir SEDAF jigéen ñi bu ñu soxlaa dañuy ñëw SEDAF ba léegi am ay femmes boulangères fa nekk yoo xam ne bu soxlaa dañuy ñëw ma ubbil leen ñu ñu ñu def seen activité dem jaayi mais la fa nekk yëpp jigéenu département Mbacké ñoom ñoo ko moom mais du matériel bu ñuy jël di ko jox kii wala kii. Ah, amul di ko génne daal. non te damay préciser encore CEDAF c'est pour toutes les femmes du département de Mbacké du parti politique du CEDAF du pour parti APR du parti PDS képp kuy jigéen am 9 ans. wàll daal. am 9 ans jëm kaw ci CEDAF ba nga bokk. ak foo mënti bokk CEDAF kenn du ko politiser parce que ministre de la femme ministre de la république la CEDAF administration la. te man préfet mooy sama kilifa kon nag nii gendarmerie di doxee euh, agriculture di ko doxee développement communautaire di ko doxee SEDAF noonu lay doxee bien que nag dinaa xaw a déranger ñu bëri parce que damay politique responsable politique la mais mënuñoo fexe ba ma politiquer SEDAF du département de Mbacké parce que euh, je défie quiconque boo génne laajal femme opposition yi ñoom gis nañ seen bopp ci SEDAF yi bu baax a baax ak les femmes apéristes yi bëgg a ñëw SEDAF du man nag maay jël sama tànk dem jëli jigéen ñi di leen indi SEDAF par force. ndax ma madame Mbacké loolu dafa jaaxal ñu bari pour ñoom rek euh, parti bi nga bokk rek fa bokkul doo nekk SEDAF. non non non c'est que nag opposition bi sax amuñu problème SEDAF mais apéristes yi ñenn ci appérise yi ñi ma bokkal pouvoir ñoo am problème ak SEDAF parce que li ñu bëgg ma def ko SEDAF du ma ko a def ndax du ñoom bu ñu bëggee bénéficier SEDAF am nañu ci bénéficier wu ci financement am nañu ci bénéficier wu ci formation dañuy def demande déposé ko euh, dinaa la rappeler rek leen ne bi ma jëlee service dama bind préfet ne ko SEDAF dafa mel ni ñu bëri xamuñu ko dama bëgg def tournée au niveau départemental parce que SEDAF du pour Mbacké rek du pour Touba rek 14 communes rurales yëpp ci la ñu bokk mu accepteel ma ko wutal ma oto defal ma ci carburant ma ànd ak yenn femmes yi bi ma njëkkee ànd ak yenn femmes yi am na yenn femmes yoo xam ni ñoom laa ànd ji may dégg def tournée l'arrondissement de Kayel bi ma àndee ñoom def huit commune arrondissement Kayel yëpp ma bàyyi beneen jour bi ma jël benn femme PDS boo xam ne dafa dëkk ngaa bu origine ma ànd ak moom def tournée arrondissement euh, fii nu mu tudd Ndaam. defaat tayif ta kii euh, beneen tournée dem ba tayif ak Sadio muy arrondissement euh, muy muy arrondissement tayif donc ma sillonné naa 16 communes yëpp par la suite laa woo jigéenu def euh, commune Mbacke biir Touba ak astafurla bi SEDAF woo jigéenu Touba yi tamit bi SEDAF ñu def réunion ñoom ñi nga xam ne dama woon ci ñoom parce que mënuma dugg ci jigéen ñu nekk présenté leen lan mooy SEDAF ñu waxtaan ñu def PV transmettre ko suñu supérieur loolu laa mënoon dem wax leen mooy SEDAF te saa yu ba doon dem sous préfet ba la ma préfet doon booleel ak le conseil municipal ci communes yi kon nag def naa je pense que def naa sama rôle informé naa na jigéen ñi mais nag euh, du man maay dugg ci kër yi di leen woo naan ñëw leen SEDAF matériel baa nga fa. kon daal mën nañoo jàpp ne bunt bi ubbeeku na ku bëgg a ñëw mën nga. te damay préciser leen matériel u SEDAF du matériel bu ñuy jël di ko distribuer ay jigéenu APR matériel bi SEDAF lañ koy bàyyi ku ci soxla ñëw liggéey ci soo pare dem même boo amee formation ba pare ku soxla na nga ñëw liggéey SEDAF ñu dem mais amuñu lu ñuy seddale du dund bu ñuy séddale du ay fonds yuy séddale yu nekk SEDAF amu fa. ministre de la république nag su fekkee ni màggal dafa jub si mu yilif SEDAF estego fa ceebam ak matériel am ndax moo ko yilif di ko jël di ko ziyaare kilifa yu bag yi fi biir kilifa jigéen ñi nga xam ne sëti sëñ Touba lañu loolu moom dana ko def moo yor listam di ziyaare kilifa yi fi nekk mi kilifa mbàkke mbàkke yi ñi nga xam ne dimbali si màggal gi ci ceeb ak ci ay chaise ay ay kit cuisine et cetera et cetera loolu moom da koy def matériel moom SEDAF lañ koy wàcce xam naa nag gis bu ñu gis ñu dugg ak génn ñu yaakaar ni man maay séddale mais loolu ministère de la femme moo ko moom wàcce ko fa parce am nay magasin yu fa nekk bu paree jël ko di ko séddale mais je précise bien SEDAF bi këru jigéen ñi la amul jigéenu APR amul jigéenu euh, euh, réew mi amul opposition amul dara amul société civile képp ku bëgg a ñëw SEDAF da nga ñëw service la service la comme service Sénégal yëpp waaw loolu moom dama teniroon pour préciser ko. d'accord dégg ngeen ko mbokk yi leeral yi am na solo ci euh, madame Mbacke nee na SEDAF ubbil na buntam ñëpp kon kon kenn ku si nekk mën nga caa ñëw daal di bay sa waar waaye gis nañ ne mbas mi lëmbe réew mi àddina wërngal këpp di coronavirus bi mu ñëwee gis nañ ngeen lancé benn initiative bu rafet muy une femme un masque mbir moomu naka la demee. Euh, jërëjëf euh, loolu moom dama ci remercier le ministre la femme président notre coordonnatrice régionale muy madame Fatou Diané madame Guèye euh, di ci remercier particulièrement notre coordonnatrice départementale muy madame Mbaye Fatou Nene Ndiaye ci liggéey bu rafet bi ñu ànd di ko def man en tant que ministère de la femme may seen point focal euh, liggéey boobu plateforme la boo xam ni ministre de la femme dafa xam ni xel war nañoo dugal suñu loxo ci mbas bi. te dañoo àgg benn stade boo xam ne dañ il faut ñu ñëpp am ay masques pour protéger wu. léegi loolu bi mu amee ci la def plateforme boobu au niveau des cinq départements du Sénégal mu nommé fenn fu nekk euh, au niveau des 14 régions d' abord mu nommé fa fu nekk coordonnatrice régionale ensuite au niveau des 45 départements département bu rek am na coordonnatrice mais il faut ñu préciser que SEDAF amu ci département yëpp au niveau national 12 SEDAF moo fi am. am na donc am na département yoo xam ne amuñu SEDAF donc département yi amul SEDAF ñoo amuñu point focal man maa nekk point focal fii parce que maa fi représenté kon nag ministère de la femme mënut a am liggéey bu toll nii di ko liggéey te représentant lu ci bokk. il faut ñu préciser loolu. objectif bi nag moo ñu aar ñëpp ñu participer tamit ci Covid bi ñu ngi ci doon participer naa ci beneen façon mais bi nañ ko teg mu harmoniser département yëpp muy def collecte de masques. bu ñu collecté masques yi ba pare parce que dañu sasoon ay masques ñun ñoo njëkk a am nombre bi ñu waxoon au niveau régional am nañu 110000 la ñu sasoon am nañ ko ba ëppal ko ba ñun déposé nañ bu yàgg suñuy masques au niveau de Dakar kon ñun gàcce ngaalaama ñiy santaale tamit bonne volonté yi yëpp yi nga xam ne participé nañu au niveau régional mais surtout au niveau de notre département euh, ñi nga xam ne jël nañ seen xaalis dugal ci les maires des communes. Euh, su ma tuddee Abdou Lahad Ka mi nga xam ne jox nañu ak yeneen communes yi rek yóbbaale na ñeneen ñi ak jigéen ñëpp jigéen ñëpp su ma tuddee jigéen yi yëpp mën naa koo jox soxna Mbore Ndiaye mi nga xam ni moo yore conséquence de la femme moom participé na jigéen ñëpp participé nañ ci kon nag loolu dañ leen sant bu baax bu ñu collecté ba pare dañuy def distribution yi mais distribution bi defe naa dans moins d'une semaine ñu commencé ko pour distribuer masques yi pour ñu aar nit ñi loolu moo doon objectif. fan ngeen euh, lancer fa ban fan ngeen visé yaakaar ne fa ngeen ko war a yóbbu wala fépp rek. waa am nañu ay cible ci la liggéey tey man war nañ war nañ koo déposé parce que suba dañu def pour am na benn canevas xam nga liggéey su pareegul mënoo ko wax mais xam naa daal canevas yi euh, cible yi euh, mooy daara yi école yi ga gare routière yi marché yi luuma yi et cetera et cetera mosquée et cetera mais nag département bu nekk commune bu nekk dafa am ay réalité ñu dañuy waxtaan suñu biir def suñu proposition man ak madame Mbaye bu ci kaname jox ko suñu coordonnateur régional moom mu yëge ko ci kaw comme ça nag le mot final revient au de la femme waaw. madame Mbacké bëggoon nañoo xam tamit sa relation ak leader politique yi nekk euh, ci département bi. Euh, sama relation ak leader politique yi góor ñi samay càmmiñ lañu jigéen ñi samay xarit lañu. oo ma ci kenn ak xaar ma yàlla man madame Mbacké politique jaralu ma yenn yi euh, am na loo xam ni. même su ma nekkul woon Touba sama yar mayuma ko sama personnalité mayuma ko sama statut mayuma ko kër politique doo dégg mukk ñu ni madame Mbacké wax jamu wax je défie quiconque doo dégg ñu ni madame Mbacké la mu def waru ko woon a def xanaa nag y a des personnes mal intentionnées defe ni politique ŋàññante la ak xas nit wala jéem a galgal nit mais nag je suis fort forte assez mature mat sama place bu baax a baax et je pèse bien mes am na loo xam ne kenn du ma ci dégg kenn du ma ci gis ku ma ci wooy doo ma ci fekk sur le plan politique parce que politique diir bu gàtt la. mais des fois dañu naan ku dul ku dul xeex wala nga ciy xuloo di ci wax kii amoo fit daal. non ah kay dox la ak wax te it non politique il faut nga am fulla mais am ful la du xuloo ak xeex mooy gis li nga xam ne lii yeyoo nga ko lii yow yaa ko war a jot bu xëccoo jotee nga xam ne lii war nga koo mën a xëccoo nga xëccoo ko mais lépp ci kaw yar ak teggin mais du xas nit wala wax nit lu ñaaw wala tuumaal nit wala sosal ko moo la tax nga au di dinañ lay jéppi au contraire dinañ lay jéppi mais xoolal président Macky Sall euh, mi <laughs> est-ce que gis nga ko muy xas nit wala muy wax nit dara nan la def ba nekk président ba dañuy estimer ko. ci dëkk bii gis nga ay politiciens yoo xam ni ay vrais politiciens lañu yu am arañi sur le plan politique ñu xam politique mais doo leen dégg mukk ñu wax loo xam ne après dañu koy rëccu mais nag am na ñoo xam ne yaakaar na ni seen politique ci seen làmmiñ la yem il faut ñu def politique sociale d'abord nga commencé ko ci ñi nga dëkkal ñi nga dëkkal nga seq ak ñoom loo xam ne xamuñu président Macky Sall yow soo xew xewlee yow la ñu xam boo leen wooyu ñu ñëw ñu olof xamade jiitu xaw ma joote xaw ma euh, il faut ñu def ko mais nag du à travers les ci internet bi ak ak vidéo la ñuy politiquer loolu moo fi bëri waaw bëgg buzz dem ma madame Mbacke li mu def duñ ko nangu duñ ko def nangam ak nangam non non non loolu du politique politique dafa am dafa c'est l'art de gérer fexeel ba pare sa ñi nga kiiyal nga li nga leen tane nga dimbale leen ko lañu am nga bàyyi koog ñoom te bañ leen di nax bañ leen di ku kon lan ngay conseiller ñi nga xamante ni ñu ngi def loolu ñu arrêté parce que loolu jàppalewuñu président Macky Sall parce que président Macky Sall newul ci loolu jàppalewuñu le ministre de la femme moom mooy le responsable des femmes APR aussi moom tamit kenn gis ko ci loolu mi ngi def li mu war a def ñoom ñi ngi def li war a def euh, mais xoolal ku mel ne si Abdou Bali euh, Gaynde Fatma xool ko mi ngi politique pourtant sëriñ lew su ko neexoon toog këram ndax li mu soxla yëpp am na ko macha allah je touche du bois parce que am na foo xam ne boo fa juddoo ba pare di liggéey am na loo xam ne doo ci sonn mais xam ngay problème bi ñi bëgg dundee politique ñoo am problème mais ñi politique fekk ñu am seen métier di def seen métier amuñu problème mais ñi nga xam ni boo yaakaaree ni madame Mbacke mii wala diw mii su li mu yor politique bee ko may da ngay nax sa bopp ñun dañuy politique mais ay fonctionnaire la avant ñii politique macha allah yu touche du bois ñun am nañu ay ay mbokk am nañu suñuy doom macha allah yu touche du bois comme ñeneen ñu ko amee kon nag il faut ñu rafetal politique bi. surtout ñu sóoraale dëkk bi ñu nekk. macha allah am na solo madame Mbacke bëggoon nañoo xam lan moo la dugal APR ak sa diggante ki nga xamante ni moo di président Macky Sall. Euh, man politique ci laa juddu ci laa màgg mais dama ci yeex a dugg parce que kilifa gi ma àndal mais imaamu Daaru Moussi politique ñoru ko mais dafa dem ba ci biir xam ne man bëgg naa ko euh, li ma ko waxee dafa ne ma loo ci amul nga defe ne maa la ko xañ. ci la ma ci amee ndigal ma dugg ci politique mais man politique defe naa ay est-ce que du ay 2012 laa ci dugg dugg ci euh, parce que tamit soo bëggee dimbali jigéen ñi nga ànd parce que man développement dafa mës a ñor avant ma yor SEDAF bi dama yoroon sama groupement de femmes muy waa Kër a Awa la mais soo bëggee dimbali jigéen ñi il faut nga am ay relation il faut nga politique politique ambition la objectif la euh, il faut ngay politique pour mën a jàppale nit ñi parce que man sama salaire ak li may yëngatu ci développement ak li ma nit ñi may mënuma cee jàppale nit ñi xëy na su ma duggee ci politique naa am relation def ay demande de formation ma daan naa def ay formation avant may nekk SEDAF formé naa fi ay jigéen yu bari fii ci cadre bi euh, groupement des femmes euh, des groupements des GPF de Touba bi ma ko dirigé formé naa fi ay jigéen yóbbu naa leen ba ITA e boobu yorguma SEDAF kon formation ma dama cee yàgg waaw yàgg na ma neex kon nag euh, loolu moom ma dugal ci politique ma nekkoon ak sa Seck réew mi bi ma nekkee ak moom it bi président ñëwee euh, ma gis li muy liggéey ma gis ci sama bopp man kenn yóbbu ma APR maa fa yóbbu sama bopp ma nekk ci Idrissa Seck ne am na ñu bëri ñu ma doon jël si ma dem APR mais jour bi may mobiliser leen Moustapha Diop fii Moustapha Diop bi ma jox pour ma mobiliser ko li euh, ma jox financement yi boobu maa ngi opposition jigéen ñu bëri merci bi ma ko mobiliser nag ba pare laa gis confiance moom bi ma jox Moustapha Diop ma gis objectif bi ñu ci am ñoom jour boobu laa démissionné publiquement réew mi dem APR. ah d' accord loolu moo la jëlee réew mi yóbbu la. APR loolu moom bi ma duggee APR ba léegi nag ay relation yu baax laa am ak nit ñi responsable yu bari bari bari non seulement au niveau de Touba. bi nga xam ni maa ngi euh, profité di nuyu Moustapha Cissé Lo di sama mbokk di sama xarit mu jàppale ma bu baax a baax a baax ci moom laa njëkkoon a nekk bi ma bi ma jógee euh, réew mi dama toog di politique sama bopp Bas Diagne moo fi ñëw ak Abdou Niane euh, am na ku leen troisième million ak général Diène Gueye ñëw ni ma président Cissé wax a wax ni ne dafa bëgg nga ñëw ànd ak moom politique mais Cissé man lu ma am ci askanu Mbàkke am su baax sax doomu suñ ko sa asloo laa koy santay loolu moo ma dugal ko Cissé Lo ma doon politique bi ma demee ba ka biir Kër Cissé Lo nag gis fa loo xam ni du ci moom du ci njabootam mais ci ay militantam la ñu bëri mer fa loo xam ni mi ngi yàq diggante je préfère ma retirer wu foofu regarder sama relation familiale ak moom yow maa moom benn xaar ma yàlla maa ngi koy dégg su ma amee soxla dinaa ko woo su xewlee dara dinaa fa dem mais nag su le plan politique loolu taxul ma jóg ko Cissé Lo yor sama yëfi bopp waaw liggéey président Macky Sall nag président Macky Sall nag xam na ma ndax déjà administration laa yor euh, lu muy dimbale na ma ci dimbale kooku la xamul du ko def ministre gouvernement tamit yu bari xam naa leen am naa ci ay mbokk am naa ci ay xarit Euh, ñi may jàppale pour ma jàppale jigéen ñi ndax soo gisee social bi ma doon def ci màggal gi du lu ma am sama bopp du lu ma sama doom di jox mais ay demande yu ma def feneen ñu jox ma ma jox ko ñi nga xam ni fii lañu nekk di ma jàppale euh, ci Covid bi nii waaw loolu daal la ci laa nekk euh, loolu daal man ci ci loolu laay dox. Ah, macha allah am na solo ñu gisoon tamit euh, fan yi ñu génn euh, coow yu metti amoon ci diggante ay 10 millions ak mairie beeg yu ni mel <laughs> madame Mbacke nañ foofu tuuti nga leeralal ñu bu baax loolu naka la demee. xam nga man bu ne coow da am dafa may jaaxal parce que coow dafa am ñii di wax lii lii di wax fii mais dafa mel dafa am benn groupe de personnes rek buy wax xam nga 10 million yi yàgg na fi. yàgg na fi defe naa su fi ñëwul en 2014 2013 am na fu bëri fu mu jaar ci loxo maire la mujj a jaar parce que dafa am benn kilifa diine bu bu gisoon première dame ñu ko damaa bëggoon ñu dimbali sancaanu Touba yi première dame dem wax ko ministre de la femme bi fa nekkoon muy le ministre euh, Mariama Sarr ma koy nuyu au passage moom moo ma indi SEDAF bi mu ko joxee daajam moo génne xaalis boobu daaj ministère de la femme bi moo génne xaalis boobu pour indi ko Touba di million yi bi mu ko indee mu am ci loxo yu bari yu mu nekk yàgg na fi jigéen ñi xamuñoo woon xaalis baa ngi fi ba ñu taxawal réseau des femmes pour le développement de Touba ñu ñu dem ci kilifa googu di ko wax man réseau de femmes pour le développement de Touba ci laa nekkoon lu mat juróomi nit euh, dama lay wax rek li tax xaalis bi yàgg mairie euh, bi loolu amee kilifa googu daal ni ñu ah comme yéen def ngeen seen kuréel nekk benn am na xaalis bu fi nekkoon première daam demandé woon ko ministre de la am bu mu indi ko fi ak ay machine boobu xamuñu woon leen loxo jigéen ñu koy teg mais comme booloo ngeen nekk benn dinaa jël xaalis bi jox leen ko euh, léegi euh, bi ñëwee ba ci biir ci la jël xaalis boobu mais avant mu jóge ci kilifa boobu am na fu bari fu mu transité ba dem ci loxoy maire bi référendum bi ñëwee nag ci la maire profito woo jigéen ñi ba defoon remise symbolique foofu ba mu fa jógee nag la gars yi naan man bokk ma ci réseau bi kii bokk ma ci réseau bi kii bokk ma ci réseau bi yëpp mel ni Sadaku tas waaw maire tamit dafa obligé te xaalis bi mënu ko jox ñii bàyyi ñii à chaque fois nag Abdoulahat Ka mi ngi woote man mi personnellement saisir na ma ni ma waxtaan leen ak jigéen ba xam noo leen def ba jox seen 10 millions mais xëy na lu mel nii la ñëpp doon daw koo wax mu ni du ma ci dugg ci 10 millions du ci dugg du ci dugg effectivement 10 dara 10 million yoo xam ne faamu commune Touba yëpp a ko bokk Touba mosquée ñoo ko bokk il faut ñu mu leer xaalis bi 10 millions commune Touba ñoo ko moom kon nag képp kuy jigéen yeewoo ci commune bi ci nga bokk. mais est-ce que yaakaaruñu ne nag euh, xaalis bi comme que APR ñoo ko indi rek ñoom ñoo ko. du APR dama dee naa la dage. Euh, euh, première dame ministère de la femme la ko minister de la femme wax ko dage booy génne xaalis ministère. ñu indi ko mais dage bu xasee ba génne xaalis du xaalis politique. xaalis politique yi dugg fii président moo ko indil boppam jox ko ku mel ni président Cissé Lo wala mu jox ko kenn ak keneen wala ñu lay wari wari wari màggal loolu mooy xaalis politique xaalis bu jógee ci état ci ministère dugg fenn loolu du xaalis politique xaalis bu jigéen ñëpp la léegi bi loolu amee feebar bi am ñu ne pourquoi pas comme xaalis bi bariwul ndax bu ñu ko doon séddale ku nekk ñu fekk la sa kër di la ko jox bu ñu joxee kii keneen war naa taxaw ni sama wàll dañ ma ko dañ ma ko jox parce que jigéen laa ci laa bokk bu xasee ba dugg séddale moom mhm. la ay bonne volonté di def dara Touba ca kanam mi ngi def euh, Samba ak ma demba ku nekk yaa ngi def sa kemtulaay kàttan 10 millions yi ñoo ko moom mu ñu koo séddoo te it ministère de la femme duggoon na fi 180 millions ci département bi ay financement am ñu fay am ñu fayul mais xaalis boobu bu ñu ko jëlee séddale ko jigéen wala ñu koy lebe est-ce que dañu fayaat léegi ñu ne xaalis bi comme combat bi combat jigéen ñëpp la ku nekk li nga am sa doole mu néew mu bari yaa ngi koy euh, jox doomu aadama yi di leen dimbale 10 millions ñu ñoo ko moom maire na génn xaalis bi na génn xaalis bi jox ko jigéen maire ne na ñëw leen maire moom ni danaa leen jox seen xaalis léegi bu joxee xaalis bi ñu xool ñu activité bu ci mën a def bu dugg ci feebar bi pour ñu waxtaanee ko mais avant ñuy waxtaanee activité jóg nañu nañu jox xaalis bi diw parce que diw moo fi nekk euh, affaire authentique mais xaalis bi du question parti jore compris ñu ne xaalis dañ ko jox diw na d'accord ngeen jox ko diw kese sax ñu téye ko et puis xaalis état xaalis u jigéen duñ ko jox benn nit mais kon maire ji woo kenn joxe ko mais maire woowul dafa nan ñëpp dajaloo ngeen waxtaan ci mais même compte bancaire soo koy ubbi mbooloo trois signature na ci am. Mm-hmm. est-ce que kon maire bi euh, yaakaar booloo gi yaakaaroon ne am na ci seen diggante est maire du booloo du booloo ndax maire ku xam dëkk bi moo ñu ko gën a xam mais moom comme xaalis bi xaalisu jigéen ñi la. lii am na ñu waxtaan suñu biir xool ba xam ban activité la def ba xam dañ koy euh, jëndee ceeb jox denrée nit ñi ba xam dañ ko yóbbu ci hôpitaux yi wala nangam loolu si ñun la ñu ñoo war a waxtaan ba xam suñu 10 millions ñun ñoo ko moom jigéen ñëpp nag ñoo ko moom ñu toog waxtaan ba xam lan lañ ci war a def mais 10 millions yi kenn jëlu ko pour jox ko une femme un masque une femme un masque c'est l'objectif bi leen ministre de la femme sasoon avant date limite bi ñu atteindre nañ ko ba joxe suñu xaalis bu yàgg kon foofu waxee wuñ fa Euh, une femme un masque Covid la Covid 19 bi moo ko tax a taxaw Covid 19 boobu nag moo taxaw ñun tamit dañuy waxtaan ñun ba activité bi xanaa ñun mu ñu dëkk Touba nekk ay yaay nekk ay ay ay soxna nekk ay bàjjan ñu am nañu yërmande feebar bi am. boo amee 5000 jox nit boo amee sa 2 euh, kilos ceeb jox nit ñu ne suñu xaalis mi ngi dañ ci waxtaan ba xam ne leen mën def euh, ci ci feebar bi wax dëgg yàlla. kon ba fi mu nekk nii mënuñoo trouvé lenn lu ngeen ci mën a def. non dinañ trouvé solution ndax ñi xaalis bi moom ñu ngi ciy waxtaan. non xaalis bi moom ñu ngi ciy waxtaan <laughs> bi <laughs> ñu ngi ciy waxtaan. léegi euh, démb ba léegi ñu ngi waxtaan idée yaa ngi commencé di génn. ma xam naa tey taalagu ma portable mais idée yi ñu ngi commencé di génn dañuy dem ba ci biir nag li majorité bi wax moom la ñuy def. majorité bi lu mu wax moom la def am nañu ay propositions yu bari comme pare ñu du lu may wax ci ci ci ci télévision. comme pare guñu naa bàyyi bu ñu pare ñu xam en tout cas lu majorité bi wax dañ ko def suñ demee nag ba majorité bi waxul ñu et puis majorité bi ñu ngi wax ñu ngi wax ba ñu ngi wax bu buñ demee nag en tout cas solution dina am. dina am daal solution dina am mais daal dama bëgg mu mhm. leer. Mhm. xaaj du xaaj su parti. jigéen Touba yëpp ko bokk. te it luñ ciy def it ñëpp luñ ci d' accord loolu moom dinaa dina dinaa ko xam te it euh, ñun bi ñu def réunion keroog en tant que représentante ministre de la femme. Euh, saisir naa préfet wax ko ko région bi parce que tamit administration noonu la tëddee ministre de la femme bien que nag état continuité la parce que temps ma Sarr la woon mais actuellement bi ñu réglé xaalisu di millions yi ministre Ndeye Saly Diop la fi fekk bien que nag dugg ci moom mi ngi ministère am mais au niveau départemental dinañu waxtaan te yaakaar naa ni euh, maa ngi nuyu solo Dieng bu baax euh, moom du ma ni ndey parti bi la mais ndey département bi la mi ngi ciy dox jéego yu am solo solo jang mi ngi ciy dox jéego yu am solo ndax moom bëggul échec gu président Macky Sall bëggul échec gu kenn te defe naa ne buñ ko dégloo rek dañ ci en tout cas woo nañu ñëpp woo nañu ñëpp ñu waxtaan ba xam lan lañu def suñu 10 millions ci activité mais xaalis moom damay préciser lu ñuy teg ci table di ko séddale. d' accord macha allah foofu leeral gi am na solo mais fi ñuy jeexalee rek mooy euh, après mbas mi élection yi di ñëwaat lan lañ mën a xaar ci madame Mbacké pourquoi pas sax mu posé nekk candidate euh, présidentielle. candidate présidentielle moom duma ko doon. duma ko doon mais lépp lu ñu xëccoo ci département bi waxoon naa avant mbas bi te ma am euh, compétence yor ko sur le plan politique dinaa positionné wu mais nag lépp ci kaw yar ak teggin waaw ndax tamit euh, booy politique euh, te osé woo dara doo am dara du question am loo def sa poche mais soo bëggee dimbali sa askan te mu leer na ne place bi bu la fa tey nga dimbali sa askan man pare naa mais nag ci kaw yar ak teggin ci laa koy def. man lu yar ak teggit amul bokkuma ko bëgguma ko mais nag dinaay faral di wax sama émission le sëñ Cheikh Gaïndé ma waxoon laay def su waxkat yi wax lu ñu xamul man may def lu ñu mënul dooma dégg mukk ci polémique saaga nan ma fan yi ba tàyyi wax nan ma ba tàyyi maa ngi ak yi mais bu du woon politique kenn du ma wax man maa opté pour politique mais nag su amee yenn dépassement yi yoon a ngi fi sur le plan politique nangu naa ñu wax ma lu leen neex mais nag je ne suis pas n'importe qui dama am ay njaboot am leneen lépp lu waay wax rek ne loo mën a prouver waaw lu nekk nag mën nan ma ko wax du ma àddu mais nag du ma jóg ci di leen jaaxal di leen jommal am na ku ma wax benn baat bërki démb envoyé ma ko audio bàyyi naa ko ak yàlla mais nag ah war nañoo xoolaat seen bopp ndax nit ki moom boo koy ŋàññi toujours te gisoo lu mu ko wàññi yow mi koy ŋàññi gisoo foo euh, départ wala nga nga bëgg bës ni nit ki naa ko ŋàññi day xala métti rek te it nag defe naa ki jiitu lañuy xam caayaam ju gàtt ma damay dem ba posé wu question buñ naan lu tax man duma leen woo xaalisu APR bu ñu koy séddale sédduñu ci di wax APR ñoom est-ce que dañ def responsable de APR APR te man yëguma ko loolu laay laaj jigéen département Mbacké est-ce que dañ def responsable des femmes APR te ko ndax bu ñu toogee naan madame Mbacké du duñ ñu woo lu lu état di fi lu lu lu président indi duñ ko yëkk man président du ma jox dara li may may c'est personnel mais joxuma dara dama jox te ku ci loxoy jigéen yi nday sali li muy indi màggal li sëm la yor di ko jox kilifa diine yi te Ndeye Saly dafa dëkk ci dëkk bi ay mbokkam dañoo nekk ci dëkk bi milieu social avant muy nekk euh, ministre de la femme njóobeen yi seq ko ak ak euh, looyeen fii ko fi baax rek mbokkam la mais yeneen leaders yi fii ñëw di jàppale seen mbokk lu tax kenn waxu leen Ndeye Saly buy ñëw ci dëkk bi naam dina fi ñëw yenn saa en tant que ministre de la république mais dafay ñëw en tant que Ndeye Saly Diop Dieng. bokk dafa dëkk ci dëkk bokk ci. Mhm. dëkk daaru xuddoos gii soxna maam Fatim Mbàkke ma rey ma di léppam bu ñëwee fa lay dal amul feneen fa mi dal kon nag yaa il faut ñu bàyyi seen coow li te dem liggéey li président ndax ñu am ndam ci dëkk bi loolu laa leen di lancé unité moom mënta am 100 pour cent du Mbàkke yëpp mais ñi mën a ànd ñooy ànd liggéey ku mënta ànd ak nit demal bees sa làng ku nekk xam loo loolu moo dàq sax na nañuy jaar fi ñuy jaar fi ñu ñu ñëpp ku nekk liggéey bu ñu paree ñu sotti ko président Macky Sall ku nekk wane ni nga mëne d'accord <laughs> kontaan bu baax a baax si waxtaan bi duñ def lu dul euh, bàyyi la nga daal di tàggook mbokku internet yi. Euh, damay profité nag comme danga ma laajoon ci une femme un masque gannaaw ba ma santé président de la république euh, sant le ministre de la femme Ndèye Saly Diop Dieng suñu ministre bu baax boobu responsable des femmes APR sant la coordinatrice régionale madame Guèye Fatou Diané ci liggéeyam bu rafet bi di ko félicité encore di bera cant tamit euh, madame mbay di sant opposition jigéen ñi di ko teg ci loxo soxna Ami Tine mu jàllaleel ñu ko di sant APR yi ko teg ci loxo Soda Dieng mu jàllaleel ñu ko di sant tamit société civile di ko teg ci loxo soxna Marème Ndiaye euh, More Ndiaye bu mbakke présidente comité conseil de la femme mu jàllaleel ñu ko ci jigéen ñëpp di bari sant nag sama yaay soxna Mbayta Diop loolu moom du ma du ma mënuma def émission par di ko sant te du ma ko sant di sant tamit jeunesse bi yëpp di ko teg ci loxo Kumba Fa Kumba sekk su ma ko texee tegee ci loxo Kumba sekk rek mu jàllale ko di di di di di beral nag cant nag Oulimata Seck sama xarit waaw euh, maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baloo ñëpp àq di bal ñépp àq ku ma tooñ baal naa la ku ma tooñ baal naa la ku ma tooñ baal naa la euh, sant naa ñëpp ñëpp di sant tamit autorités yi nga xam ni la préfet surtout muy accompagné waaw autorité administrative yi chef de service yi di sant tout le monde ñu participer ci Covid bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp sant na leen bu baax soo duggee ci lim di nga juum wala doo matal yéen tamit di leen gërëm di leen sant bu baax a baax a baax Thierno maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax te it euh, euh, koo xamul li nga koy def rek ni mu la def moo tax. ndax lii dama ne woon duma ma ci wax tànk parewuñu suñu paree dinaa ci wax incha allah di ñaan jigéen ñëpp rek ñu àndandoo nekk benn yéenante jàmm te moytu wax ju ñaaw ndax am na lu ku baax ka waxoon wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógale ci saanoo nañu sóoraale ni dëkk Sëñ tubaa lañu nekk te dafa am comportement bu ñu fi war a amee. jërëjëf euh, macha allah kàddu yi rafet na madame Mbacke ñu koy gërëm bu baax a baax moom tamit ci disponibilité bi ndaxte yaakaar naa ne borom baax la te leeral li fi indi tamit am na solo lool jëm ci SEDAF ak li nga xamante ni moo di coowul 10 millions yooyu nga xam ñu ko fi doon dégg joxe na ci ay leeral bu baax a baax tant ak ngërëm ñeen na leen amee internet yi safoo dak 24 actu di di dëgg daje beneen numéro incha allah jërë ngeen